bismillah li xeeñ ci Sénégal gi ah neexul de mar day taal le populaire ne ma ne la saltigay daal musiba mbaaba kumba kon la biir lu yées la ñu gis kon mooy xew ca réew ma la ilaha illallah ma ne la wàllum fitna kon dana am ci élection yi la ilaha illallah la réew mi ci boppam laa lay wax kon dana am kon ay yënga-yënga ay perturbation dana yëngu ma la deret ju bari bari dana tuuru ci kaw tali bi dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah maa la ko wax ma ne la inondation yi kon nañ ko waaj ren ji le dana ñëw ma la njéeréer yi tamit danañ dugg kon ca biir tool ya mar ba ma ne la Serigne Mbaye Gueye Dieng waaw nee na Macky Sall bu deful attention réew mi kon dana am ay yëngu-yëngu laa la wax tribune yéene kay ne day a musiba la ñu gis de ca wàllum Casamance ga a le populaire nee na na caa am de waaw ma ne la te saafara soose ci ti jigéen lay jugee alhamdulilah ma la ñett ya ay séeréer la ñu benn ba joolaa la te kon lay ne dama ne journaliste yi nag nañ waajal seen bopp de ren ji ñay dem ca police ak boo xam ne day faat ɔtɔre ilaha illallah allahumma salli ala ah maa la ko wax de am na journaliste boo xam ne day dee ren inna lillahi wa inna ilayhi rajiun laa ilaha illallah fëgg leen nopp yo le populaire ne ma ne la week-end bi xoolali xew ca diwaanu Gorée Tëngéej ak bari ñi gee doy na waar ma ne la ab dënn boo xam ne kon lam fa def jéggi na dayoo loo ëpp ñaari ci ay millions kon la yàqate directeur infacture bi ngeen ne kay ne ma deret la ñu gis laa wax ak ay rongañ ak fitna loo xam ne kon lu baree bari la laas nee nañu élection locale yi deret na ca bari nawet bi ren du baax du neex neex le soleil yéene kaay ne fitna wàllum politique googe ca Grand Yoff waaw Aminata Touré day woote na dal de woote na dal de le quotidien yéene kaay ne Mimi Touré kay daa tuumaal accusé Khalifa Sall nag tuuma yee la dindi teg ne laas ne fitna gi kon ci waajaayu élection yi ca Grand Yoff ge waaw Mimi Touré day dañu ko attaqué ay fukk-fukk ci ay doomu aadama am nañ ay gaañu-gaañu laa la wax Aminata day waaw attaqué na Khalifa Sall de nee lii daar sax ruslu laa la wax daa ruslu ci góor premier ministre ba Aminata Touré amu ca nee na bu ma téyewul woon xale yi waaw heure bii ñaata doomu aadama kon ñoo ca dee waa taxaw ndakaaru day ñuy ànd Xalifa Sall waaw nee nañu mais c'est naturel parce que sa bakkan nag bu nekkee ci xottu gerte kat da jóg sa bopp défendre waaw direct info ma ne la fukki doomu aadama yi gaañu day am ay gaañu-gaañu waaw ca Mimi Touré la far looloo tax ba premier ministre bi Mimi Touré tamit ngi préparer la guerre allahu akbar am na ci ab sondage boo xam ni kon génn ne intercom a ko def Mimi Touré Xalifa Sall day waaw dañoo tolloo de dañoo tolloo de Aline la PDC nee na élection yi dañ ko war a aj ubbil sur quotidien Aline Badara Cissé na dama ne yi ci boppam la ñu war ak ko waataay gi des na liste yi bari nañu waaye Aline Badara Diop Benno Bokk Yaakaar bu ndar gee ca direct info nee nañu respecté cartum réew mi la di calendrier républicain tribune yéene kaay ne waaw mën naa jàppandu ci Gaston Mbengue de waaw waaw la Gaston Mbengue nee damaa bëgg wan waa Ndakaaru njaay jël taal marte itali Cheikh Yérim Seck ak ñama àndal nee nañu réew mi doxul ñoom ñoo ñee nee nañu bëgg ñoo def comme ñeneen ña nañ def maanaam maanaam sàcc kàcc daal di dem sa yoon libération yéene kay ne bu dee am na koo xam ne day kontaanul ci émission seen jotaayu démb bile ci seen TV Samuel Sarr la ah waaw parce que bay laa woon ba muy jàkkaarloog Ahmed Aïdara kat lenn la bay laa wax nee na moo présenté Samuel Sarr njomboor nee ma laay wax waaw Samuel Sarr ne a xam dañoo war di Adji Sarr ngir am tur bay laa li mu wax du dëgg lii dëgg kay mooy Ablaye Wade da ngay ñibbi i libération yéene kaay moo ko wax siiwal yéene kaay ne dëgg la waaye une semaine la fay def dee le quotidien yéene kaay ne ginnaaw ba fi amee weer waaw Wade s'en va Ablaye Wade da ngay ñibbi tey ci ngoon de enquête yéene kaay ne waaye nag dana réunion kon a garde rapproché mi ba pare direct info ne Cheikh yi nekk kon ca Matam kay delloo nañu ko njukkal waaw waaw libération yéene kaay ne lu tax waa Matam nag di delloo njukkal kon Cheikh Amar moom mais mooy usine ba nga xam ne kon def na ko ca Matam benn Dakar étudiant Matam yi nga xamni ñoo nekk ci Dakar gi mo leen wutal ab étage bi immeuble bu ñu dëkk di ko fay lek ga ñuy lek kon ci université ga mo leen koy fayal kon di tikke lolo tax étudiant yo jee dal di koy delloo ñukal ministre Seynabou gay Touré day ah toj na tiwaawoon gaye lam gi dal moy dajale kon gënu kayor yëpp yene ka gi ne daanaka juroomi junni kon ci ay soxna la dajale kon ci tiwaawoon rêve ka judd dem na ci lamb je le soleil yene ka ne Ama balde day waaw dakal na nak ndam yi nga xamni kon mom la malik Niang doon am malik Niang mujina daanu bi bii mooy bu njëkk mu daanu laa la wax enquête yéene kay ne Ama Baldé kay ah jubbanti na Malick de maa la ko wax laas ne Malick Niang mi nga xam ne kon da doon dóor gars yi bàcc bàccal moom lañ bàcc bàccal bi yoon l'arroseur arrosé <laughs> waaw waaw waaye ginnaaw combat ba day neexul de libération yéene kay am na koo xam ne ñàkk na inna lillahi wa inna ilayhi rajiun le populaire ne ko ñaara ca ñàkk seenu bakkan allah libération yéene kay ne ko may moom yeegali ma ne la gis nga le juge ko fekk agressé ko la ilaha la am na ci benn policier boo xam ne tam ña ngi ko entrée hôpital principal mu yow directeur info ne kaay nag ma wax lu leer Malick Niang waaw li feeñ laataa combat bi ne Malick Niang mii ñàkk na combat bi bari na uh-huh. waaw waaw bu njëkk ba mooy Ama Baldé deux heures tisbaar la amax ca stade ba Malick ñaa tardé Malick ñaa ngi fa ñëw laa lay wax nii quatre heures huit daanaka te kenn koo xam ne jege na sax Malick ñaa nee na pourtant dañ doon waaj a a ñëw de waaye xamuñu lan moo ñu téye kon ca kër ga ba mujj gi kon ñu mujj tardé booy benn ñaar ay supporteru Malick ñaa dañoo meloon ni laa lay wax nii ñu sotti glace dañoo seet doon ca stade ba ca jamono jooje ay supporteru Ama Baldé ña ngay jayax jayaxi di amaye ndeysaan ñetteel bi wane ne kon kii di Malick Niang day daanu tey waaw mooy sarax yi nga xam ne kon Malick Niang doon na ko jox handicapé fa nekkoon way laa koy Malick Niang daal comme jox sarax nga daal di koy sànni ca suuf i bi wane ne Malick Niang day daanu tey mooy ba muy tuus waaw kenn xamul lu mu def di n'importe quoi mbir ma jaxasoo te moo ni répété nañ ko de defoon nañ ba mu baax ca open press ba waaye démb daal ma ne la déggul daaj Malick Niang bu jaaree nii wu ko sans calcul lañ ko waxoon defu ci dara ba dara bolo jeex Malick nee daal daa ñëwoon rek bëgg a patam patamee kon Ama Baldé jaxat-jaxatee ko waaye mënul woon a rëcc ci Ama Baldé démb de parce que doomu Falaye Baldé jëlee ci côté yëpp la pare woon laa la wax <laughs> ama ye ama ye ndeysaan alaaji awul awul awul ama ye alaaji aji waay waa kon garaawul tëjal